alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada wa ala alihi wa ashaabihi wa man walaahu ila yawmi ddin mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk suñu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ci topp ay ndigalam ak bàyyi ay tereem bu loolu jàllee ñu xam ne xéewali sunu borom tabaraka wa taala yim nu xéewal nun doom aadama wala nun bindeef xéewal yu bari la bari aana xéewal yu nu defal bari aana ay musiba yum nu fegal ba borom bi tabaraka wa taala wax ne su ngeen jéemee lim xéewali yàlla ci yéen du ngeen ko mën a lim mun leen koo konte mukk loolu moo tax sant sunu borom tabaraka wa taala doon lu war ci nun taqoo ak cant muy cant gu jóge ci mbindeef mi jëm ci boroomam lu war la cant googu nag dafa am ngëneel yu bari moo tax sunu borom tabaraka wa taala soññ jaam bi digal ko ne ko nay sant boroomam fu mu toll bokk na ci yooyu digal gim ko ko digal won ko ne dafa war reconnaître xéewal gi nga xam ne moom la ko boroom bi tabaraka wa taala defal yàlla ne su ngeen ma dee tudd danaa leen tudd su ngeen ma dee fàttaliku danaa leen tudd waaye na ngeen may sant te bañ a weddi na ngeen di sant seen borom tabaraka wa taala te bañ a weddi ay xéewalam bokk na ci lii wane ngëneelul cant moo di sunu borom tabaraka wa taala nee na cant dafay fegal nit ki mbugal day fegal nit ki mbugal wax na ko ci alquran nee na su fekkee ne yéen a ngi sant seen borom ci xéewal yim leen defal kon dey borom bi tabaraka wa du leen bugal doyewul dara seen bugal bokk na ci ngëneel yi nga xam ne cant am na ko moo di sunu borom tabaraka wa taala daf ne nit ñi ñaari xaaj lañ ñi nangoo sant ak ñi weddi seen borom ñooñu rekk ñoo fi nekk borom bi nag dara gën te rëy fa moom nit ki weddi ko ndax xam nga ni nit sax bu yëkkatee dara def teg ci sa loxo ba noppi nga weddi ko ne joxuma ko loola day diis ci yow lool yow nit ànd ak ne loolee nga ko jox yow du yaa ko bind du yaa ko sàkk du wërsëg woo xam ne fi yow la jóge waaye dafa jaar ci yow rek nga jox ko ko kon nag ki nga xam ne moo bind jaam bi bind wërsëg wa yëkkati ko teg ko ci loxoom su weddee wërsëg woowa kooku lu rëy rëy la moo tax borom bi tabaraka wa taala waxal ko boppam ne doomu aadama day ñaari xaaj rek la imma shakiran wa imma benn mu doon ku nangoo sant wala mu doon koo xam ne rek ku weddi la dellu ne moom day weddi bëggul ku koy def su fekkee yéen a ngi sant nag loola moo dëppoo ak bëgg-bëggam bokk na ci lii wane ngëneelul cant moo di sunu borom tabaraka wa dafa saxal ne xéewal gi ngir muy yokk ngir mu man fee sax te bañ a dañ kooku faaw day ànd akub cant nee na sunu borom tabaraka wa taala ci boppam déclaré na def na benn declaration ne su fekkee ne yéen a ngi sant kon man danaa leen dolli su ngeen dee sant danaa leen dolli su ngeen weddee nag te weddi mooy lànk bañ a sant nee na xam leen ne sama mbugal lu tar la xam leen ne sama mbugal lu tar la kon loolu daf lay confirmeel di la feddlil li ma la waxoon léegi ne cant gi ci boppam daf lay fegal mbugal su fekkee ne soo weddee mbugal maa ngi ñëw kon loolu day feddli ne cant gi ci boppam day fekk mbugal wala in kafartum inna adabi la shadid bokk na ci ngëneeli cant moo di ñii sant dañoo néew borom bi tabaraka wa taala ci boppam waxal na ko boppam nee na wa qalilun min ibadiya shakur ñu néew ci sama jaam yi ñooy ñoo may sant kon nag waay waay mbokkum jullit fexeel ba bokk ci ñu néew ñooñu nga xam ne dañuy sant seen borom te waxaat ne moom sun borom tabaraka wa taala ne ku santul yàlla doo mën a bokk ci jaamam yi dëgg dëgg dëgg ñi nangu seenum njaam ngir nga mën a def li ñuy wax al ubudiya nga nangu ko defal sa boroom muy li taxoon ñi bind la fii ngay jaamu sunu borom képp te boolewoo ko keneen ngir loola mën a sotti faaw nga doon koo xam ne dangay ngay sant sunu borom tabaraka wa taala bokk na ci ngëneel yooyu te bokk na ci la ci gën a mage moo di ne cant jaam bi féetewoo di sant sunu borom tabaraka wa taala kooku melokaan wi melowoo ci yi gën a kawe ci melokaan yi ci la bokk moo tax yeneen yi ña ci gën a kawe melokaan yooyu daa bokk ci seeni melokaan borom bi bi muy sant Ibrahim di ko tagg mi ngi wax ne moom day jaamukatu yàlla la jaamukatu yàlla bu mokk la te bokkaale du mbiram waaye nag ku mën a sant xéewali boromam la ku mën a sant xéewali boromam cant nag ñetti mbir walla juróomi mbir moo ko moo ko lal yoo xam ne su dajee ci yow sog cant mat na ba ca jëkk mooy nga nangul xéewal gi ki la ko defal sunu borom tabaraka wa taala nangu ne lii ci moom la jóge boole ko nag aku toroxlu fi kanam sa borom toroxlu ga mooy nga yëg ne yow kat lii mu la defal du yaa ko yeyoo waaye ci mbaaxam rek la la ko defale waaye kat xéewal goo xam ne nangu nga ne yàllaa ko def waaye da ne ci sama kàttan wala ci sama xam-xam wala ci sama man man la ma ko defale googu cant àndul ak ak toroxlu kon cant googu day ànd ak toroxlu yëg ne yow mii doo kenn su la sa borom toppoon du la defal dara waaye nag moo la defal xéewal gii ci baaxam kooku mooy tomb bu njëkk bi ba ca des moo di ak bëggeel goo xam ne xol bi daf koy bëgg koo ki ko defal xéewal gi muy sunu borom tabaraka wa su xalaatee ne xéewal gi mënoon na ko ko bañ a defal te dara du ko ci war moom sunu borom tabaraka wa taala waaye mu defal la ko peeg la ak ay xéewal yoo xam ne du jeex fu nekk ma nga fa ndey joor ak càmmooñ ak kaw ak suuf kanam ak gannaaw lépp xéewal la tam mënoon koo bañ a def su ko neexee kon kooku wax dëgg yàlla sa xol war naa aju ci moom war na ko bëgg fu mu toll ñetteel ba moo di di ko tagg moom sunu borom tabaraka wa taala fu mu toll ci xéewal googu ba ca des mooy mu def ko ci topp yàlla xéewal gi mu ko xéewale mu def ko ci loo xam ne dafa jëm ci topp yàlla bu la joxee alal nga jëme ko ci as génne ca asaka ja ca war lépp loo xam ne jox dala ko ci xéewal am lu moom la ca digal ci xeetu topp yàlla nga def ko ci beneen ba ca des mooy nga bañ koo jëfandikoo ci mooy yàlla xéewal gi la yàlla jox bul seq benn jéego boo xam ne xéewal googu ngay jëfandikoo di ko moye yàlla bu la joxee bët bu ko xoolee lu xaraam bu la joxee tànk bul ko doxe mukk jëm ci lu xaraam bu la joxee moyen sax boo xam ne danga koy tukkee wala nga di ko duggee oto sax di dem fexeel ba moyen boobu bul ko def ci lu xaraam lépp na delluwaat ci biir topp sunu boom tabaraka wa taala lii moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ñaan yi nga xam ne suba ak ngoon da daan taqoog moom di ko ñaan moo di allahumma ma asbaxa bi min nicmatin yow saa boroom lépp loo xam ne mi ngi ci sama loxo ci xéewal ci suba ak ngoon <coughs> ci suba ak ci ngoon aw bi ahadin min xalqik wala mu nekk ci loxo kenn ci sa mbindeef yi fa minka waxdaka la sharika lak ci yow képp la jóge amut kenn ku la cay jàppale wala ku la cay dimbali ci yow rekk la jóge falaka alhamdu walaka shukur kon cant gépp yaa ko moom loolu la daan wax suba ak ngoon teg cee it di wax ne koo xam ne lii boo xëyee wax ko ca bis booba nee na la la waroon ca bëccëg ba ci cant moom joxe nga ko boo ko waxee ak ngoon it la la waroon ci cant ca guddi ga def nga ko allahuma ma asbaxa bi min nicmatin aw bi ahadin min xalqik fa minka waxdaka la sharika lak falaka alhamdu walaka shukur lépp lu tege ci sama loxo suba ak ngoon ci xéewal wala ma tege ci loxol keneen ci sa mbindeef yi ci yow dong mu la jóge yoonu keneen nekku ca kon cant yaa moom lépp kon loolu ki xëy wax ko def na li ko waroon ci cant ca bëccëg ba bu gontee wax ko def na li ko waroon ca ca ngoon ga mu wax ko nag mu doon loo ne lu jóge ci xolam la kon loolu moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne cant ñetti ci a ko séq muy xol bi xol bi mooy palaasu reconnaître ne xéewal gi ci yàlla la jóge mooy palaasu bëgg suñu borom tabaraka wa itam ñaareel ba mooy làmmiñ wi ci boppam di tudd cant googu moo tax suñu borom tabaraka wa taala daf ne wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis xéewalug sa borom yàlla nee na dee ko waxtaane dee ko waxtaane li la yàlla defal di ko tudd wàññiwul daa lu baax la moo tax fudayl ibn iyaad rahimahullah day wax ne bokk na ci sant xéewalug sunu borom tabaraka wa taala nangoo wax ne lii xéewal la gu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala di ko waxtaane moo tax nee na am na genn guddi moom fudayl ibn iyaad ak sufyaan ibn uyayna dañoo julli gee ba noppi toog di waxtaane seeni xéewal kenn ku ne di nettali li ko yàlla di defal ci xéewal ñi toog fa di ko waxtaane ba noddu fajar fekk leen fa kon loolu mooy joxe mooy joxe cant lu bari ci nit ñi nag seeni xéewal dañ koy nëbb bu amee xéewal it buñ la gisee dañ lay won ne ci bekkoor lañu nekk ndax di yërëmtalu di séentu ndimbal ci ñeneen ñi te fekk mën nañoo dimbali ñeneen kon loolu lu ma a wattandiku la ndax dafa juyoo ak cant suñu borom tabaraka wa taala kon làmmiñ wi am na cër bu rëy a nag ci sant suñu borom tabaraka wa taala ba ca des mooy cër yee kon moo di dimbandikoo sa cër yi ci jaamu yàlla ak bépp jëf boo xam ne sant lañ la ko ci xeetu jaamu yàlla bu ab cër di def nga sax ca di ko def moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan julli guddi naafil lay gudd yàgg ba mu yàgg tànk yi sax dafa mujjoon di neew biñ ko laajee ko waaw lii ngay def nag te xam ne yow sa borom jéggal na la say bàkkaar la jiitu woon ak la mujj mu ne ah ndax su ko yàlla defee man duma doon jaam boo xam ne day sant boroomam kon jëf ji ak jaamu yàlla yi muy woor ak naafila ak def lu baax ak yooyu yépp day dellu ci biir sant xéewal yi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala defal na ko jullit yi buñ xoolee lilu li nga xam ne moo war seen diggante ak seen borom li nga xam ne tuur na leen ko ci ay xéewal tàmbalee ko ca xéewalu gëm sunu borom tabaraka wa nga xam ne mooy bi gën a rëy ci xéewal yi jaar ko ci xéewaluk sutura si nga xam ne suturaal na ko yow doomu aadama ba yu bare bari yoo xam ne su la ko feeñaloon ci say mbir toroxte am mu suturaal la ca loola boole ko xéewaluk fu mu fu ne boole la ak lu lay fàttali loo xam ne daa tax nga war a fàttaliku ba mën a def aw yiw ndax ni ko Ibnul Qayyim di waxee daf ne bokk na ci ndimmali yàlla yu yu nëbb yi yu xóot yi moo di borom bi tabaraka wa nit ka day toog ca këram xëy xelam nekkul sax ci sarxe wala def lu baax yàlla yabal ab jaam buy dox ba agsi ci këram fëgg buntam ne ko damay yelwaan kon kooka ma ngi koy fàttali yiw wu rëy woo xam ne su ko defee kon nee na def na yiw woo xam ne wu rëy la woo xam ne dañ ko ko fàttali te loolu lu am solo la léeg-léeg nit ki dana toll situation boo xam ne bu ko nit ki fàttalee sax loolu yiwu mag lay doon moo tax imaam bii di euh, salaam ibnu abi mutia nee na benn bis dafa seeti ku feebar bi mu dikkee fekk ko muy onk onk yu méttee metti nee na mu ne ko fàttalikul ñi nga xam ne ñi ngi tëdd ci mbedd mi yàlla sànni leen foofa ñu tëdd fa wala nit ñi sànni leen fa amuñu fuñ fotu fàttalikul ñi nga xam ne amuñu kenn ku leen di defal dara lépp ñoo koy defal seen bopp mënuñ mënu mënuluñ seen bopp dara nee na bi ma ko waaree waar yooyu ba génn ca ëllëg sa ñëw di ko seet bi ma fa jubee ma di ko déglu dégg ko muy baamtuwaat kàddu yooyu au lieu mu delluwaat di onk nee na ma dégg ko mu naan fàttalikul di wax ak boppam fàttalikul ñi nga xam ne yàlla da leen a sànni ci mbedd mi fàttalikul ñi nga xam ne amuñu ku leen fàtt fàttaliku ñi nga xam ne amuñu ku leen liggéeyal wala ku leen defal dara kon kooku waare googu ak fàttali googu ci xéewali suñu borom tabaraka wa taala yi nga xam ne day yebal ay jaam ñu dikk di la fàttali sa diine wala ñu lay muñloo wala ñu lay xiirtal ci nga joxe sax fi sabilillah loolu ci xéewali suñu borom yi ci la bokk xéewal yooyu mu bokk ci xéewalu wér-gi-yaram mu jox la ko ndax feebar boo feebar bu ne boo xoolee ci sa wet da gis koo xam ne danaan ak a neexoon ma mel ne yow te yàlla defu la ne kooka moo tax abu darda radiallahu taala anhu da daan wax ne wér gi yaram de mooy nguur wér gi yaram mooy nguur waaye leneen du nguur ndax nit ki mën naa nekk sax ci nguur waaye borom bi tabaraka wa taala teg ko ci xeeti feebar loo xam ne su fekkoon ne alal la koy faj mu mën koo faj waaye fekk alal du ko faj pexe amu ca kon yàlla jox la looy lekk jox la looy naan jox la foo dëkk jox la wér gi yaram ngay dem ak dikk di dégg di wax kooku ay xéewal la yoo xam ne nit ki mënu koo lim bokk na ci xéewali alal ni ko sunu borom tabaraka wa taala joxe doomu aadama ji nga xam ne kenn ku nekk jox na la sa wërsëg mu ngay dunde moo xam daa yëkkati alal teg ci sa loxo wala daa yëkkati li ñuy dunde ci boppam teg sa loxo wala daa tàggat jaam ñi ba saa bu sa waxtu lekk jotee ñu jox la nga lekk su dara nekkul woon ci sa loxo it bu waxtu wa jotee faaw la nga soxla da ñëw kon yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi sol ak foo mën a nekk nag ak sa situation nu mu mën a demee te doomu aadama mun mënta am lu weesu loolu te it xéewalu soxla aw ñam wala ndox dugal ko ci sa biiru yaram mu dem ba war a génn nga am xéewalu mu génn yaar yooyu xéewal féetewu leen kaw moo tax euh, Bakr al-Muzani muy ku baax da doon wax ne wallahi xawma ñaari xéewal yi ban ban moo ci gën a rëy ci nun muy ni'matul maslak xéewalu bëgg a lekk xiif borom bi tabaraka wa jox la ci wér loo xam ne man ngaa tibb wanaasu lekk mu dem ci sa biir nee na xaw ma xéewal googu lay gën a sant wala xéewalu su jekkee ba rees borom bi tabaraka wa taala won ko yoon wa muy jaar mu jaar fa génnaat ndax ñaar yooyu lu ci amatul rek musiba am am na ñoo xam ne ngir ñu mën a lekk dara la ñuy def ci seen baat ab tiwo boo xam ne luy dugg ci lay jaar nga xam ne xeeti caf ko moom génn na ci ndax dara jaaratul ci seen gibiñ lay dugg day dugg rek mu yëg ne diis na waaye du xam sax ndax lekk na am déet su demee ba mu war a génn am na ñoo xam ne bën bën lañ leen wutal ci seen biir ab loxo lañuy ñuy dugal génne la nekk ci biiram mu door a mën a génn loolu kon ku ko xalaat xool li la sun borom tabaraka wa taala defal ci xéewal kooku da nga xam ne kii rek moo jar a sant moo tax Aïcha radiallahu taala anha bi da daan wax ne ku naan am ndox mu neex te loruwoo ca mu génn jot génn ak génnam jot mu génn génn bu aw yoon te lor nekku ca nee na ko war ngaa sant kooko war ngaa sant mbokki jullit yi suñ xamee loolu moo ndax bokk na ci ak cant yàlla lii nga xam ne noo ngi ciy teg suñ bët tey ci melokaan yi lu bari ci jullit yi boo xoolee ci wetu jigéen ñi lu bari ci ñoom tey seen wàllu col li ñuy sol ñàkk ga solo ak modèle yaag suufe ga ak soree ga ak doomi jullit war a mën a sol lu mel noonu wala jullit war ko mën a sol ñàkk kersa ga muy làmbool mu ndax loolu bokk na ci sant xéewalu sa borom tabaraka wa taala jox la jëndee yére nga war a doon nit ku yiw wala sol jot nga dem sol loo xam ne boo génnee ci mbedd lépp loo doon mi ngi ci bitti kooku day bokkul ci sant xéewal ndax bokk na ci sant xéewali sunu borom tabaraka wa mu wàcce ci yow diine ju toll na diiney lislaam nga won ko gannaaw di fental sa bopp ay biddaa ak ay réerukaay ak yàqukaay yi pas-pas yoo xam ne yaa ko tëral sa bopp won sa gannaaw won gannaaw diine ju sell jooju kooku bokkul ci xéewalug sant xéewalug lislaam ndax bokk na ci sant xéewalug sunu borom tabaraka wa taala mooy déclarer guerre sa diggante digganteeg borom sa borom ci jëfandikoo ak riba ak lépp loo xam ne lu ko laal la ndax noonu la ko yàlla tudde ndax bokk na ci sant xéewali suñu borom tabaraka wa jël alal di ko def ci dorog wala nga koy def ci sàngara suñu naan wala nga koy def sax ci cigarette kooku ka koy def santul alal ji ko sunu borom tabaraka wa taala jox te xam ngeen ne dorog ak sàngara mooy yi ci aw askan rawatina mooy yi yées ci ay ndaw moo tax su ma gisee ñuy taral lool lool lool ci wàllu drogue di ci taxaw taxawaayin woo xam ne wu rafet la wu mat a sant la ba noppi sàggane sàngara nit ñi ubbi sàngara di jaay ñi li leen romb damay waaru duma xam lan moo tàqale diggante lii ak lii ndax lépp a yem lépp dañ ko waroon a boole nit drogue mel sàngara mel noonu ak lépp loo xam ne day yóbbe nit ki jël sàngara mbokk jullit yi ndax bokk na ci sant xéewal ak sunu borom tabaraka wa taala lii ñuy dégg ci jamono yii muy loo xam ne daanaka xaru nga koy mën a tudd ci nit ñi ni ñuy jëfandikoo tey oto yi ak waruwaay yi ay xel yoo xam ne yu jéggi dayoo la ñàkku yar boo xam ne bu jéggi dayoo la ñàkkub dal ñàkk tolérance ci kawub tali ci anam yoo xam ne li ciy faatu ci ay ruux ci am at sunu borom tabaraka wa taala rek xam nu mu toll loolu bokkul ci sant xéewalu ki borom bi tabaraka wa taala jël oto boobu teg ko ci loxoom kam ko jox mu di ko joxaat nit it war naa yëg responsabilité am ci ñam koy jox mu xam ñii ñu mu doon ndax seen responsabilité àgg na ci mën a dawal oto yu toll noonu wala déet nit ki dafa jaadu ñi yar ko ba mu yaru xam lu muy def ak lu muy bàyyi jàngal ko la muy def itam ba mu doon loo xam ne lu man la xarañe ko ñi door ko wàccee ci tëli bi mu yor lu toll ne waruwaay yu mel noonu nga xam ne doomu aadama yu bari ñooy nekk ci biir loolu lu mat a bàyyi xel la ndax bokk na ci sant xéewali sunu borom tabaraka wa taala lu bari ci ñu yàlla jox alal tey niñ koy jëfandikoo mu di jëfandikoo yu bari yoo xam ne jënd dajale ci seen kër loo xam ne wóor na leen ni mënuñu koo lekk di lekk muy des ñuy sànni ci mbedd yi ngay daje lekk yi fekk ay doomu aadama ngi ci bitt yoo xam ne amuñu luñ lekk am ci ñoo xam ne sax fañ sànni mbalit moomee moom la ñuy jéggi dugg ca biir di seet ca biir loo xam ne luñ mën a lekk la loolu jaaduwut ci société boo xam ne ay jullit ñoo fa nekk jaaduwut ci borom alal yi itam ñuy sàggan ci mbirum joxe asaka kooku musiba la bépp àq bu aju sa alal moo xam asaka la moo xam alali jàmbur ju ne ci biir alal la muy bor wala lépp lu mën a doon dafa war a dellu ci borom kon yooyu ay mbir la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel sant sunu borom tabaraka wa taala dafay doon loo xam ne ci jullit yi lu mun mënta ñàkk la yàlla na sunu borom tabaraka wa taala jàpp ndalal xéewal yim def ci nun nu mën a toog ay jataay di ko seetlu di ko lim ndax nu mën a walbatiku mën koo sant te lépp nu mën koo delloo ci topp yàlla lépp lu jege mooy yàlla nu soree lekk ko allahuma faqihna fi ddin warzuqna tamasuka bilhabli almatin sunnati sayidi almursalin sallallahu alayhi wa ala alihi wa